téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi test fukk ak juróom ñoo ñëw positif bon ñoo am jàngoro bi fukk ak juróom yooyu fukk juróom la yoo xamante ne ay cas contact la yuñ doon suivre si suñuy service ñu yëgal tam ne fukk ak ñeent patient ñu xamante ne ñu ngi woon ci hôpitaux yi ñu leen di faj tey wér nañ bésu tey bi nañ leen génn hôpital ci bés bi ministère la santé de l'action sociale ñi ngi yëgal ne patients yi ñuy faj actuellement ñi ngi yëg tan ci seen yaram ñuy xayma ba mu commencé ba léegi ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi cas la ñu déclaré fii ci senegal ci kaa yooyu téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar wér nañ ci ñaar génn nañ àdduna kenn évacué nañ ko bon ndëkk tey téeméer ak ñaar fukk juróomi patient ñoo nekk ci suñu hôpitaux yi ñu leen di faj ministère de la santé de l'action sociale mu ngi demander population yi ñu respecter bu baax digal yi ñu leen di jox pour que xeex bi ñuy xeex Covid 19 ñu mën ko gagner nu mu gën a gaawe de